macha allah jëwrin yaakaar naa loolu leer na ñu seetlu ne ñaari at yu mujj yi yëpp événement yu mag yi nga xamante ne moo daan am buxuma la sax fii ci Sénégal waaye ci àdduna wërngal këpp benn amu ci lu dul màggalug Cheikhul Khadim gi ban organisation moo waral loolu ak ban taxawaay la ci murid yi am. waaw maanaam bi nga xam ne moom la si murid yi am dafa jugee rek si ndigal li nga xam ne moom la suñu yaakaar te ëllëg muy sëñ Mouhamadou Mountakhal Bachir di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér te bépp naal bu mu xam ne naal na ko si lislaam yàlla na si am lu koy njortam maanaam ñun ñëpp moom rek la ñuy dëgg lu mu ñu digal moom la ñuy def lu ñu tere itam kenn du ñu seen te ñëpp xam nañ ne sëriñ Muntaxa tey moo fi sëñ Tuubaa si kaw suuf lépp loo xam ne kon sëñ Tuubaa dafa doon bañ bi muy nekk ak nasaraan si dafa doon bañ sëñ Muntaxa tey lay gën a bañ loolu bépp ndigal tam boo xam ne sëñ bàyyi woon na ko fi te ñi ko fi ñi wutu woon ñëpp doon ko doxal sëñ Muntaxa du si teggi darara da koy da koy da koy defee comme ni ko sëñ bi doon defee comme ni ko fi ñi fi wutu woon sëñ bi tam doon doon doon doon defee waaw loolu moo waral maanaam màggal gi sëñ bi digle ko donte am na loo xam ne am na fi muy feebar yi nga xam ne muy mbas mi nga xam ne am na fi nga xam ne tey ñu bëri tey tëj nañ seen seen i ay seen i ay xam ne instant bi tey maanaam jagaloo beeg yëpp dañ koo dàq demee noonu lépp gaa sëñ bi dina respecté mesures yi nga xam ne moom la gouvernement bi jëlee yu demee noonu yëpp da koy respecté muy solu masque beeg distanciation beeg mesures yi ñu war a jël maanaam lépp loo xam ne moom day laal lislaam muy maanaam tëj jàkk yeeg yu demee noonu sëñ bi moom loolu moom du si ànd ak ñoom ne seigne bi lim bëgg mooy l'islam am ndam lim bëgg mooy l'islam siggi lim bëgg mooy l'islam dara lu koy gàcceel bañ a am waaw moo waral sëñ bi tijji juma yi tijji jàkk yi ngir jaamu yàlla di fa dem di fa julli di fa ñaan suñu borom ndax mbas meek ak leneen ak leneen ndax comme ni ko sëñ mu taxaw waxee rek mbas mi jaamu suñu borom la ñun tamit jaamu suñu borom lañ mission bi nga xam ne moom la mbas mi war a def fi ko yàlla yemloo fa lay yem waaw fi ko yàlla wax lay dem fa lay dem foo xam ne waru foo maanaam yàlla wax nee na ko fa waroo faa dem itam du fa dem kon moom si mission la nekk ñun itam si suñu mission lañ nekk suñu mission ñun lenn rek la mooy jaamu suñu jaamu suñu borom waaw ñu wéet ak ñu ko te nag julli dafa dafa dafa bokk si mission yi nga xam ne dafa dafa am doole si ponk yi nga xam dafa am doole si lislaam nga xam ne soo ko bàyyi rek daanaka dañ lay génne sax maanaam si si si si nekk jullit kon buñ demee tey bay tëj ay jàkk tëj ay jumaa kon su boobaa maanaam tiitaange war naa am kon si ko ñëpp defee itam sëñ Muntaxa tey su ñëwoon joxe ndigal loolu loolu am kon lislaam day daal di këpp lislaam day daal di daanu lislaam day daal di am gàcc ngir nag siggil lislaam ak ngir gën a gën a ñoŋalaat lislaam ak maanaam ngir ñëpp gën a xamaat lislaam mooy li fi nekk moo tax sëñ Muntaxa ne jàkk yeeg jumaa yëpp nañ ko tëjji na fa jaam yàlla yi dugg di julli di ñaan suñu borom wante tamit màggal gi nga xam ne mooy moom moom la fi sëñ bàyyi woon muy ndono loo xam da ko fee bàyyi muy lu rëy muy bés boo xam da ko woote ngir ñu koy si santale suñu borom muy bés boo xam si sant suñu borom la itam sëñ Muntaxa du si teggi dara da koy bàyyi ñu defee ko noonu ndax loolu tawféex gi si nekk maanaam tawféex gi sam wees na suñu njort ndax suñu tawféexu àdduna ak àllaaxira la muy saadatu daaray ni wante maa kifaayati hëmmay hima maanaam muy texe àdduna ak àllaaxira wante bu àndul ak benn lor ak benn ngaañ kon loolu du ko xañ doomu aadama yi du ko xañ mbindeef yi moo tax heure bu ñëwee rek dañ koy matal comme ni mu doon amee ndax loolu mooy suñu taw feex tey ëllëg macha allah loolu am na solo kenn du al muntaxaa borom mbégte mi yàlla nañu ko yàlla fayal jëwrin abu ma bëggoon a xam xasiday sëriñ Tuubaa yi ak jaar-jaaram yi ban anecdote moo la si gën a marqué. waaw maanaam sëñ Tuubaa moom daanaka léppam soo koy jàngat da lay marqué soo koy jàngat da lay ndaxte ñëpp xam nañ sëñ Tuubaa daanaka dundam lu si bari si maanaam si ay si fitna si ay tartar si ay metit si wéet maanaam si la ko si la si la ko dund ndax ànd naag ay noon nga ànd ak say noon te ànd bi nga ànd ak say noon di nga see wéet si saayee di nga see wéet ndaxte amul kenn koo xam ne rek ànd nga ak moom bi ngay dem ku dul suñu borom ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ànd boobu nga ànd ak ñoom wéet boobu noonu te ñoom seen yéene lenn rek la mooy gàllankoor la seen yéene lenn rek mooy jëm la éliminer seen yéene lenn rek la mooy lislaam daanu lislaam tumurange yow nga taxaw bañ loolu ñu ànd yow di la def façon métit bu ne façon fitna bu ne ñu teg la ko kon mën nañ wax ne kon maanaam sëñ Touba maanaam cursusam lépp lu maanaam luy marqué jullit bi la kon luy marqué doomu aadama bi la rek en personne waaw wante nga nga seet sëñ Touba comme ni ma ko waxee sànq biñ ko yóbboo Gabon defal ko piège boobu ñu ko defaloon ngir tàbbal ko maanaam si benn kàmb goo xam ne kàmb goo dañ koo xam safara goo xam xam nañ ko lu yàgg ngir dugal ko fa moom lañ naan bi ñu ko dugalee si fuur muy muy safara su tàng soo xam ne yàgg nañ koo xam dafa ko piège ba sëñ bi tëmb dugg si biir fuur boobu métit boobu noonu nag li si li si yéeme mooy sëñ bi da koy yëg ak keneen ku mu doon dugal ni nga koy yëgee noonu ko sëñ bi yëgee waaw si moment yooyu noonu tamit si la sëñ bi doon bind xasida wala xadda karram naa bani aadama waaw bi ko sëñ bi di bind xasida googu mu ngi nekkoon si métit yooyu mu ngi nekkoon si tartar yooyu lenn li ma marqué si si xasida googu nag mooy sëñ bi dafa dem ba si biir xasida gi di ñaan parce que instant sëñ bi xam na ne moom war naa dellu parce sëñ bi da doon xam loo xam ne ñëwagut xam na ne sëñ bi moom xamoon na ne war naa delluwaat Sénégal waaw muy ñaan suñu borom nag ijaal rujuu'i ila xawmi saadatana wal takfina yawma jam'il xalqi niiraana yow sama borom maa ngi lay ñaan sama dellu bi nga xam ne may nga ma ko ba war naa koo dellu tu war naa koo dellu Touba. na nga def dellu ba may dellu Touba mu nekk texe waa Sénégal yëpp mu nekk ñoom seen texe su ma ñëwaatee Touba na nekk ñoom seen texe ñoom ñëpp ba pare bésu yowmal xiyaam na nga leen fegal lépp loo xam dañ koy ragal muy safara week mbugal yi fa am yëpp ñoom buñ si gis dara bu si dara jot maanaam si moment yi nga xam ne sëñ bi mu ngi nekk ci tartar yooyu ba pare di xalaat moom doomu aadama yi ngir ñoom ñu texe ngir ñoom ñu am jàmm maanaam loolu daf maa marqué ndax fii daanaka nit ku nekk soo nekkee si tartar rek sa bopp rek ngay tal waaye sëñ bi mu ngi nekk si tartar yooyu da tartar yooyu tartar yu élevé la yu yéeme la taloo sa bopp wante yaa ngi xalaat doomu aadama yi ngir ñoom ñu taxe ngir ñoom suñu borom musal leen si safara suñu borom musal leen si lépp lu ñuy ragal loolu moom bokk na si nga xam ne marqué na ma donte lu bëree ma bokk na si nga xam ne lu ma gën a marqué la macha allah jëwriñ loolu am na solo kenn du Cheikhul Khadim radiallahu taala anhu nga xam ne moom moo demoon sa tukkee ba ba tey ñun ñëpp ñuy bànneexu maam Cheikhul Khadim borom 18 safar macha allah jëwriñ loolu am na solo euh, ma bëggoon nga ñëwal ma rek ci almuntaxaa borom mbégte mi ki nga xamante corona amna histoire waye mom tamit yakarna amna histoire bu mu def bi nga xamante mbass mi ñewna yakarna tay ji bu ñuy bind euh, histoire corona taxaway Cheikh Mouhamadul muntaha ci mbass mi histoire dina ko bindale tamit nga ñu ñu ci mom xam nga laj laj bu am solo laj bu laj bu yéeme muy serigne muntaha muy ku neex waxtane ndax ñepp xam nañ tay serigne muntaha sagul islam la rawati nak murit serigne muntaha, suñu sag la ñun suñu tawféex la maanaam suñu suñu suñu suñu mbégte la te nag sëñ Muntaxa dafa nekk tamit koo xam ne dañ ko dañ koo préparé nekk da ko xëy rek tey ñëw nekk xalif sëñ Tuubaa léppam da koo da ko da ko da ko da ko da ko da koo préparé defar ko ba mu ba mu ba mu ñol ba nga xam ba nga xamante ne ni day neex a jëriñoo sëñ Muntaxa te ñëpp xam nañu ne tey taxaw bi nga xam ne taxaw na ko si àdduna bi waxuma la jullit yi kese mais képp kuy mbindeef rek sëñ Muntaxa tey sa sag la ndax taxawaay bi nga xam am na ko tey muy koo xam ne tam comme ma ko waxee léegi rek sëñ Tuubaa da koo préparé waaw bi mu ñëwee dafa ñëw gën a taxawalaat lislaam wante mi gën a dalalaat xel yi wante mbégte mi gën di jolli saa su nekk maanaam ak ak ak kóoluteef bi nga xam ne ak pasteef bi nga xam ne murid dañ koy am dafa gën a yokk ndaxte ñoom ñëpp si sëñ Muntaxa la ñuy xool ndax moom moo ko waxal xam nee na xool leen ci man moo tax ñuy xool ci moom suñuy xool ci moom nag suñu tàng si lu baax rek lañ koy teg waaw kon suñu taw féex la sëñ taxaa tey mi xam moom moo fi nekk sëñ bi nag préparé ko ndax sëñ bi wax na ko katabtu annal Muntaxa xad faaxa man ma daaw man yaati woon fii sa zaman ku mel na moom faat na duñ ko gisati musuñ ko gis nañ ko gisati mooy sëñ Muntaxa donte sax sëñ bi mu koy bind yoon sallallahu alayhi wa sallam la si jublu woon wante turu sëñ Muntaxa bi dañ koy rafaatalee sëriñ Muntaxa mi waaw lil muntaha awsil bi xayri law mi bu charatan tax lu du kulla yow mi sëñ Tuubaa ñaan si xasida ma faatul bi si mu ne na nga def sëriñ Muntaxa muy muy jo muy jolli ay mbégte yoo xam day jolli saa su nekk te loolu dañ koy gis sëñ Muntaxa donte sëriñ bi yonte bi sallallahu alayhi wa la si jublu ndax Muntaxa turu yonte bi la Muhammadul Muntaxa Muntaxa mooy nga xam dañ koo yëkkati mooy nga xam dañ koo tànn kon seigne muntaha dañ ko tan ba pare nak mu nek ko xamne mbekté la wa lil Muntaxa awsil bi xëyiram bu waxul ben mbekté mais bu ay mbekté yu bëree bëri lay jolli lo xamne day jolli sa su nek te lo gis nañ ko sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa soo ko gisé danaka muuñam ngay njëkk a gis rétanam manam xar kanam go xamne dafa dafa dafa dafa yanj andak lèr xamne dalay gëna soñat ci jaamu yàlla ndax su nekkee jaamu yàlla moom dalay lay wan a maa la ko dàq fekkee jëf lu baax da lay wan a maa la maa la dàq jëf lu baax maanaam moom nee na xaarul kenn waaw ku dem ma dem ku demul ma dem waaw moom loolu la loolu bi mu ñëwee loolu la njëkk a wax te loolu nag day gën a tax murit yi gën a soññ ama amaat soññeef gën a tamit amaat pasteef ngir nekk si liggéeyu sëriñ bi kon sëñ Muntaxa mun naa wax tey la lool moom yaakaar naa murit yëpp a ngi koy dund euh, jëwrin comme jataay bi waxtu baa ngi bëgg tënk léegi ñu bëggoon a xam rek ban message ngay joxe ñu téye ci rek waajal nga ko màggal 2022 incha allah. waaw maam message bi ñuy jox rek mooy nañu gën a defaraat toogin yi waaw gën a gën a gën a sellalaat xalaat yi gën a sellalaat jëf yi gën a sellalaat wax yi lépp lu ñuy jëf rek ñu jëf ko ngir jëmmi suñu borom te xam ne loolu mooy li ñuy jëriñ tey ak ëllëg te tam lépp lu ñuy jëf itam nañ si xool Sëriñ Tuubaa waaw nañ si xool Sëriñ Tuubaa kon ni ma koy waxee saa su nekk rek Sëriñ Tuubaa dafa war a nekk sa accélérateur si lu baax war a nekk sa frein si lu bon waaw tey sooy jëf lu baax soo xalaatee sëñ Tuubaa dina tax nga gën see am pësteef dina tax nga gën a dox jëm ca waan tey soo fas yéene woon tey bëgg a def tey loo xam ne lu safaanu la tamit mooy loo xam ne jaaduwut soo xalaatee sëñ bi si saa si rek war ngaa teg sa tànk mu nekk sa frein kon nañuy jiital sëñ bi su suñu lépp maanaam suñu lépp itam ñu jël joxaat ko sëriñ bi te am suñu joxee suñu sëriñ bi suñu lépp itam suñu lépp day daal di baax ndax sëñ bi soo gisee léppam baax léppam léppam jag moy dafa jëloon léppam jox ko yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yàlla suñu borom moko ko yoonte bi nako man ki la tan mom la jital kep ku bëgg jëriñu ci man faaw nga top ci ki bi lolu amé rek sëñ bi dane lahu dëhra niyaati wa ilmi wa khidmati wa ruhi wa jismani wa kulli bila shukli mu suñu borom kon mom mi day jox naa sama sama ruh jox naa sama liggey jox naa sama yëngu jox naa sama xam-xam wa kulli mu kon légui sax jox naa sama lépp bila shukli si lu àndut ak xàjj ak amatuma bëgg muy bëgg samay samay doom amatuma bëgg muy bëgg samay dëkkuwaay amatuma bëgg muy bëgg alal bëggatuma lenn kenn rek laa bëgg mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam moom nga moom moom nga jiital moom rek laa bëgg waaw mahat mahabatiyal muxtaari sayidina hubbil maxaani wa ahlina wal walada bëggatuma doom bëggatuma dara dammi wa ahli wa awlaadi fidaun lahu sama yaram sama deret sama lépp jaay naa ko jëlee ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ni sëñ bi defoon diggante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël léppam jox ko ko ñun ñi nga xam ne ay ay ay ay taalibe lañ nañ jël ñun tamit suñu lépp dajal la ko def ko benn say te daal di koy jébbal sëñ Tuubaa ndax loolu mooy tax suñu lépp mën a jag ndax ñu mun ñoo téewal suñu bopp dara comme am nañ koo xam ne nag moom suñu ko téewalee day jag tey ak ëllëg dañ ko ko jox te muy sëñ Tuubaa kon loolu laay soññee si si mboolem mbindeef yi nekk si adduna bi yëpp nag laay waxal ndax man mboolem laa jàmm laa yéen a